برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام Omar Kuti Thiam ne asalaamaaleykum mag la ci na jëmm ji tudd tëdd la ci moom man nag maa war a wax ci turu waa Kër Tafa yëpp mu ne moom mii moo war a wax ci turu waa Kër Tafa yëpp tey te man ci bëgg a wax ne te moom li mu ci bëgg a wax ñaar ñii dañu xam ban xaw ko ci ñaar ñii di xalifa bi ak Bachir. ak Baye Bachir ci xam moom xamut ko ci. ndax ñoom ànd nañ tukki. ndax ànd naa ñoom tukki. bokk nañu daara itam. bokk naa ñoom daara itam. kon moom liñ a wax man mënu ma ko. kon moom mii nga xam ne àndut ak ñoom ma àndut ak moom tukki lim ci mën a wax moom mënut ko cee wax. kii tëdd nii. نجم جي تدني نيت لاكو خامل كي القران مو تد في نيت لاكو خامل جيم القران مو تد في اسك نيت لاكو خامل كي نده نيت لاكو خامل كي واخوما جولل واخوما جولل ن دافا جيلال ن جوليت لا واخوما طالب لا دافا جيلال ن طالب لا lu mën a seede ci moom la it. waaye li ci des nag bàyyee naa ko ñaari sëriñ yi. waaye li ci des nag li ci des nag bàyyee na ko suñ sang yi rawatina suñ sang bi toog di xalifa bi ndax li mu ci xam dëgg-dëgg moom xamut ko ci. mbokk yi am mbokk yi. ñaari Omar kenn ku ci nekk. benn mbokkam seede. koy seede koy seede. Hmm? noo ma Touré Diagne mbokk yi ma Touré Diagne dama ngi seede Awa Mbow maa ngi yaaye maa ngi moom ñoo bokk benn ndey nee ñoom ñaar ñoo bokk benn ndey ne suñu borom bi mu ko moomee àdduna fii ci kër gi ne suñu borom bi ko jëlee fii ci kër gi ak la woon xaqan ne mu seede moom mi dëkkoon ak moom ne jullit la woon xaqan ak njabootam toppatoo na ak njabootam ku daan toppatoo ak njabootam la. benim xëyee tey wuy ji boroomam. amul dara loo xam ne mën nañ ko fisal ci àdduna yorelu kenn doomu aadama benn ne amul dara loo xam ne mën nañ ko ko waxal ci àdduna ndax yorelu doomu aadama. ñuy ñaan nag yàlla ñu ndax lorut doomu aadama. di koy ñaanal fi mu nekk na ne ñu koy ñaanal. sama jëmm. fa mu jëm tey. ko fi mu jógee. yal na ko gënal fi mu jógee yaa rabi. ak njabootam seede nañ ko. ak njabootam seede nañ mbaaxam. ak mbaaxam. ak njabootam seede nañ ak mbaaxam. ak jullitam. seede ak julliteem. ak bu mu teg ci njabootam ba kenn ku nekk ay na toll fi mu toll nii. nañu it yërmande ak mu nekkee woon njabootam ba tey ku ci nekk toll fi nga toll nii tey. allahumma salli ala sayyidina Nan la tur bi. Amadou Oumar Sow. koy seede seede Cheikhou Thiam. mbokk yi ak Amadou Oumar Sow mu ngi seede Cheikhou Thiam. di seede ci moom ne jullit la. ne mu ngi seede ci moom ne jullit la. tijaan yi mu ngi seede ci moom ne tijaan la. ku toppatoo ak njabootam. mu ngi seede ci moom ne ku toppatoo ak njabootam. ku leen yar ci lislaam. ku leen yar la ci lislaam doom yi yëpp ay taalibe ndax doom yi yëpp ay taalibe lañ. góor ñi ak jigéen ñi ñëpp. góor ñi ak jigéen ñi ñëpp. moom ci daral bi la dundoon fa liggéey. moom ci daral bii la nekkoon fa la doon liggéeye waaye waa daral bi yëpp ñu koy seedal. waaye waa daral bi yëpp ñu ngi koy seedal ci mbaax gum nekkee woon ak ñoom. ku moomoon làmmiñam la. nit ku noppi woon la. ku téye woon boppam la ngir maandu kenn xamalu ko dara doomam mu ngi fii nee na bépp bor bu mu xameloon nit moom moo koy fay ku ko xamel borit ñëwal jox ko ko ñu ngi koy sàkkul ñaan ci mbooloo mi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi Baye Alaaji mu Cheikh Ahmad Dame Al Khalifa ne mu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun damay seede ci soxna Awa Mbow mii ne dafay seede ci soxna Awa Mbow mii ay baat yu gàtt rek ay baat yu gàtt rek tey jéggalu li tax mu yëkkati fii ay kàddoom bañ dem ci kër ga bañ dem ci kër ga sama dëkkandoor la ne dëkkandooram la mu julli lu baax ne jullit bu baax la it. ne jullit bu am diine la. ne jullit bu am diine la. bu fonk tarixaam la. ne jullit bu fonkoon tarixaam la. taalibe baay piir la. ne taalibe baay xaqan la. bu bëgg baay. taalibe baay bu bëgg baay la it. gàddaay lañ jógee fañ jógee nekkoon. ne gàddaay nañ jógee fañ baxee koo. ngir ñëw dëkk ak baay fii ci Medina. ngir ñëw fii ci Medina dëkk ak baay. ba mu fi dëkkee ba léegi nag. ne ba mu fi dëkkee ba léegi nag. lépp lu baax. lépp lu baax. ak luy wër xeentoo mbaax ak lépp lu jàmm bi di xeentoo mbaax mu ngi ciy góorgóorlu mu ngi ciy góorgóorlu mook borom këram di ko jiitu mook borom këram di ko jiitu ak Omar mi nga xam ne mooy doomam tey fi ak Omar mi nga xam ne mooy doomam tey des fi te li ëpp ci mbooloo mi xam ko te li ëpp ci mbooloo mi xam ko it yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla yërëm leen ko ci barke Baye Yaara ci barke Baye Yaara bi salaamaaleykum wa rahmatullah bismillah مبقي سرن بن بسم الله السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون نموغي واخ إنا لله وإنا إليه راجعون تا ني نيب ناني كو واخ نا يالا يوبنا تاي مو سا يوب يوب تا موم يالا مومو مو سا ني يوب يوبنا يالا ناني واتال لو لي نيو واي يالا ناني واتال لو lii mu ñu yóbbul na lu nekk ndax moom yàlla xam na lu nekk nit ñaa ngi nii nit ñaa ngi nii li ñu dajale tey li ñu dajale tey jotaay bii mooy li ñuy jàngal suñu bopp rek mooy li ñuy jàngal suñu bopp rek ndax ñun ñëpp fii lañ jëm si yàlla na yéex ñu fi ñëw ñu fi ñëw yàlla fekk am bis yu rafetee ñi ko yal na fekk ñu xam bés bu rafetee ni ñi ko ñuy xamee. jëf lu baax ñu ko amee. jëf lu baax niñ xamee seen yu rafet yi tey. dëggal seen diine. dëgg dëggal giñ dëggal seen diine. yàlla dimbale leen. yàlla dimbale leen. nangul leen. nangul leen. bañ dee ci seen diine. ci seen diine. loolu itam. yal nañu ko yàlla may ñun ñëpp yaa rabbi ndax loolu rek kay ngëneel ku nekk ci àddina bi lu nekk ci àddina yàlla daf la ko xamal rek yow jaam bi nga nekk ci lenn rek la lay may mooy nga gëm ko nekk ci lim la sant loolu rek la la may moo lay jëriñ ëllëg moo lay jëriñ ëllëg moo lay yokk fi tey bon nag suñu xamee ne nii rek la demee suñu xamee ne nii rek la demee war jéem a góorgóorlu xaat ci suñ bopp defar suñ taxawaay jéem a taxaw taxawaay boo xam ne jéem a taxaw taxawaay boo xam ne taxawaayu jullit la waaye taxawaayu nit bu xam la waaye taxawaayu ci baate xam boobu nag. ñu ngi tàggoog tey nit koo xam ne. ñu ngi tàggoog tey nit koo xam ne. muy Mbaye Thiam. muy Baye Mbaye Thiam loo xam ne moo tax ñuy wax doomu njëriñ. lamboo. lépp loo xam ne moo tax. ñuy wax doomi Médina. bi ci njëkk. bi ci njëkk. mooy ne gëm na yàlla. mooy ne gëm na yàlla. dundam yépp jeexal na ko ci du dëggal ngëm yàllaam googu julli or or sëriñ xamul ndax joxe na asakam déet xaalis waaye loolu lépp loo xam ne dafay def dafay def yëkkati ko ci mag ca kaw moom mi kenn la kuréel ndax lan mokkal na alxuraan mokkal loolu mooy dayoo xam-xam te loolu mooy dayoo xam-xam bokk ne moom mii ak Baye Mbaye Thiam mii ñoo bokk at bu ñu taree alxuraan ak bu ñu ko tari na moom mii di xalifa bi moo ko njëkk a tari naam waaye après semaine bàyyi caam topp ci gannaawam tari tari alxuraan tari alxuraan ba pare bam tari alxuraan ba pare lépp loo xam ne dafay dëggal alxuraan ci moom lépp loo xam ne dafay dëggal alxuraan ci moom te mooy xam te mooy xam jàng amul ku mel ni ci moom ci bëgg jàng amul ku mel ni moom ci bëgg jàng ñëw nekk libi di jàng bi ñuy nekk libi di jàng. benn bés nelaw rek. benn bés dama tëdd sëriñ bi na dafa tëdd di nelaw rek. yama bu méttee métti. mu ñëw ee ko ee bu méttee métti. ko yow looy def nii. na ko waaw yow looy def nii. gis nga. mu ne ko gis nga. nelaw man la war ak ñi mel ni yow waaye yow nelaw warul la. nelaw man la war ak waaye yow mii nelaw warut la. boo xoolee sa baay da nga xam ne nelaw warul. boo xoolee sa baay da nga xam ne nelaw warut la. donc moom foofu la àggoon jëriñ ci àddina. lu mu jëriñ ci àddina. loolu mu war jëriñ. loolu mu war jëriñ. jar na. nit joxe lu nekk ndax loolu. nit joxe lu nekk. ndax loolu. li gën a ci loolu. te li gën a ci loolu nag. mooy am xam am xam-xam. xam-xam boo ne dafa tegu. xam-xam boo xam ne dafa tegu. ci li nga xam ne dëgg-dëgg moo tax ñuy wax ci li nga xam ne dëgg-dëgg. moo tax ñuy wax xam-xam. mooy xam yàlla. mooy xam xam li wax. mooy xam li yàlla wax. bëgg yàlla. mooy bëgg yàlla. bëgg li yàlla santaane. bëgg li yàlla santaane. mooy bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu ak lépp loo xam ne. ak lépp loo xam ne. ci yoonu daf lay teg ci yooni bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbay biñu ne bay mbay mii biñu àndee ne loolu rekk ci la nekkoon ci taar moo fi gënoon a neex sikkar fi gënoon a neex sikkar nag buñ ko daan oo buñ ko daan oo pour mu sikkaral leen daf daan tiitaru sax ne léeg-léeg daf daan tiitaru sax di bañ bañ di bañ bañ waaye fekk bañut de ay ndongo daara lañ rek dañoo bëgg a xamante. ndax boobu ay ndongo daara rek lañ dañoo bëgg a xamante. ku nekk nag. ku nekk nag. nga xam ne moo nekk ci sa xol nga bëgg ko. li nga xam ne moo nekk ci sa xol nga bëgg ko. yàlla bëgg loola ko. ko. nga def ci li nga xam yëpp yëpp. nga def ci li nga xam yëpp. def ci li sa kattan yëpp. ngir dëggal loolu ci yow. ngir dëggal loolu ci yow. li gën a kawe ci loolu. li gën a kawe ci loolu. mooy bëgg yàlla ci boppam nangul yàlla ci boppam nangul yàlla ci boppam ci waa statut yonent bi ci waa statut yonent bi buñ ko gisut itam buñ ko gisut itam gis nañ ko gis ndax ñi ko uutu ci palaasam yëpp ndax ñi yëpp nit ñu mat lañ ci jikko ci jikko ci xam mat ci xam mat jëflanteeg nit mépp xam-xam bii muy tekki ci nga nekk ci loolu muy tekki lan man nit ki man nit ki naka laay mel naka laay mel ba mën a jëriñ sama morom ba mën a jëriñ sama moromi nit ki bañ koo lor te nu ma ko mën a gën a mën a jëriñee nag te gën ci njëriñ yépp ñoom naka la ñuy àndee dem ci yàlla. mooy man ak ñoom naka la ñuy àndee jëm ci yàlla. suñu sëriñ si defalee. comme ni ñu ko suñu sëriñ si defalee. jiite ñu ñun ñëpp. ñu ñun ñëpp. ci yoon woo xam ne. ci yoon woo xam ne. ñu toog fii yëpp. ñun ñu toog fii yëpp. ku nekk gërëm na yoon woowu. ku gërëm nga ko ci sa xol. nangu nga ko. yaa ngi koy jëfee. yaa koy jëfee. yaa ngi say njaboot. ñu jëfee ko. ngir ñu jëfee ko. kon loolu ñu doon jàngale su fekkoon jaru ko. kon loola ñu doon jàngale bu fekkoon ne jaru ko. kon jeex na bu yàgg. waaye dañoo jàngale pour seen bopp. waaye dañoo jàngale wut seen bopp. dañuy jàngale ngir yàlla. dañuy jàngale ngir yàlla. jàngal nit ñi yàlla. xam ne yàlla rek moo fi nekk. xam ne yàlla rek moo fi nekk. moom rek moo am njëriñ ci doomu aadama yi. moom njëriñ ci doomu aadama Tüm rek te moo mën a lor doomu aadama. te moom rek it moo mën a lor doomu aadama. yal nañu musal ci loram. yal nañu yàlla musal ci loram. ñu ci ay njëriñam. te bëggal ñu ay njëriñam ne kenn la woon ci ñun. ci ñooñu ku bëgg xam-xam la it dëgg bëgg xam-xam dëgg dëgg Bambey Thiam mii ku bëgg xam-xam la nag ndax ca daara ja ba ñuy génn ñoo ñoo ànd ndax sëriñ bi ne ca daara ja ba nañuy génnee ca daara ñoo ànd ba ñuy génnee ci université ñoo ànd ba nañuy génnee ci université yi ñoo ànd ne benn bés ñu bokk classe maag moom ci lii ne am jamono ñu bokk classe ñoom ñaar ca lii ñuy jàng ñuy jàng may forcer comme man maay taalibe bi moom moo ma yar. waaye daf koy forcer comme moom mooy taalibe bi moo ko yar. te loolu. te dafa am xel. dafa xelam. nattale xelam ci àddina. nattale xelam ci àddina. ne rek la war a borom xam-xam yi ñooy doon borom xam-xam borom xam-xam yi ñooy doon borom xam-xam yi. njiit yi ci diine ñooy doon njiit yi ci diine. njiit yi ci diine. ñooy doon ne da ngaa war a doon koo xam ne njiit la ci diine. bon boo waree boo xamee ne danga ngaa war a doon koo xam ne njiit la ci diine te kenn du moom. kon war ngaa xam diine bu baax a baax. baax a baax. lu tax ndax doomu aadama gannaaw mooy royukaay bi. ndax doomu aadama gannaaw mooy royukaay bi. rawatina nag boo nekkee ci kanam nit ñi. rawatina nag boo nekkee ci kanami nit ñi. donc xam bu baax a baax. kon yow war ngaa dox nit ku xam bu baax a baax. xam yàlla. xam ay dogalam. xam ay dogalam. xam ay feeñuwaayam. xam ay feeñuwaayam. waxtu wu nekk. bu ko defee waxtu wu nekk. booy xalaat booy booy mesurer. booy mesurer. booy mesurer ndax nit ñi. booy mesurer ndax nit ñi. doo mesurer ndax nit ñi. doo mesurer ndax nit ñi. da ngay mesurer ndax yàlla. da ngay mesurer ndax yàlla. yàlla rek ngay jëfal. ndax su boobaa yàlla rek ngay jëfal. boo jëfalee yàlla ci jaamam yi rek. boo jëfalee yàlla ci jaamam yi rek. yàlla may leen. yàlla may leen. ñu nangu sa jëf yooyu. ñu nangu sa jëf yooyu. ngir yàlla ñoom ngir yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam bon nak buñ amé ay kalifa yo xamné jaarale nañ ni ci yoon wo te jëm ji ñu taggo tay muy dem bokku ci wa juma ji xam nañ ko wa juma ji xam nañ ko bu baax waa wasifa wi xam nañ ko bu baax jotaayu xam-xam yi xam nañ ko. jotaayu xam-xam yi xam nañ ko ràññee nañu ko. benn bés. ne benn bés. dafa ñëw sama tafsir. dafa ñëw ci bayaal bi déglu tafsiri sëriñ bi. ba pare ñibbi. mu ne ma ba ma demee. mu ne ko ba ma demee. damaa sant yàlla lool. damaa ndax maam alaaji firikati alquran. ndax maam alaaji firikati alquran. bàyyi firikate alxuraan. bàyyi firikate alxuraan. nga ñëw toog téere bañ daan firee nga toog di firee. ma ñëw toog téere bañ daan firee yow mii di seen doom nga ñëw toog di ko firi. yàlla du mu xam ne dëgg-dëgg. yàlla du maye nangu. góorgóorlu rek moo lay ci mayam. rek moo lay àggale. ci mayam. ci mayam. donc kon nit ku amoon xel la. daan jëfandikoo xelam. te def daan jëfandikoo xelam. ci mbooleem relation yi muy def. ci mbooleem relation yi mu doon def. daf koy sàmm bu baax baax. daf koy sàmm bu baax a baax. ba jéem a teg ko ci kaw yoon. jéem a góorgóorlu nag ba teg ko ci kaw yoon. nit mu koy mu koy defee noonu. du nit ñee tax mu di ko defee noonu de déedéet. yàlla mi muy jëflanteet koy defee yàlla mi muy jëflanteet moo tax mu koy defee noonu. lu tax. moo tax. moo tax. tey mëri na. tey mëri na. ñu ngi ñàkk doomam. ñu ngi ñàkk doomam. waa mëri naa daje fii ci tënku jumaa ji tey. di gunge. seen baay. seen baay. seen doom. seen mag. seen mag. seen xarit. seen xarit. seen àndandoor. seen nga xam ne. boo xam ne. jafe na jafe na nga gis nit bu matalee ni moom nga gis nit ku matalee ni moom daan ñëw ci man waxtu wu nekk sëriñ bi ne daf daan ñëw ci moom waxtu wu nekk bi mujjee ñëw ci man ne bi mujjee ñëw ci moom ba jóg di dem ba jóg di dem xaw ma lu ma xiir ba ne ko ma jaam taxawal ñu porte la parce que àddina kenn xamut lan la sëriñ bi ne nag xaw ma xamul lu ko xiir mu ne ko mbay caam taxawal ñu portelewu ndax aduna ken xamut lan la ndaysan ñu hand photo photo bobu mu ngi def fi lolu yeb limuy tektale tegtale li muy jëflante nit yi nga xamne ne jëflante nit ñi nga xam jëflante baatin la jëflante baatin la jëflante bu upp xel nit ñi la jëflante bu ëpp xeli nit ñi la jëflante bu ëpp jëflante nit ñi la jëflante bu ëpp jëflante ak nit ñi la. waaye lu yàgg di ràbb ci xikmaam rek waaye lu yàgg di ràbb ci xikmaam la. moom rek la. feeñu waaye yàlla yooyu nag. yàlla yooyu yàlla. xiir na ay jaamam. yàlla xiir na ñu xam ko nangu ko. ñu xam ko bëgg ko. bëgg ko. jébbalul ko. jébbalul yàlla ci dara. xanaa xanaa kay. def lim ñu wax rek. def lim ñu wax rek. ñaan leen ma ma may leen. ñaan leen ma ma may leen. ñaanal lu la neex. booy ñaan nag yow jaam bi ñaanal lu la neex. yàlla itam may la ni ko neexee. yàlla itam may la ni ko neexee. yal nañu yàlla may yiw. yal nañu yàlla may yiw yaa rabbi. yal nañu yàlla may mbaax. yal nañu yàlla may mbaax yaa rabbi. yal na. may ñu def ay def ñu ay jaamam. yal nañu yàlla may ñu def ñu def ñu ñu nekk ay jaamam. jaamam yoo xam ne nangu nañ. ay jaamam yoo xam ne jaamam yu nangu lañ. duñ mer. duñu mer. duñu contesté. duñu contesté dara. lu ñëw rek ñu xam ne yàlla ñëwee noonu. lu ñëw rek ñu xam ne yàlla ñëwee noonu. muy safaan. moo xam safaan bala. ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. muy leneen. bu dee bànneex mbaa leneen it. ñu wax alhamdulilahi rabbil alamina loolu mooy jaami yàlla bu nekkal yàlla Bambey Thiam mii kenn la xoon ci ñooñu dinay ñëw ci jumaa ji ko gis sëriñ bi ne danay ñëw ci jumaa ji di ko gis waaye dafa yëgul ci boppam dara waaye dëgg-dëgg yëgul ci boppam dara bu toogee ci gannaaw bu toogee ci gannaaw. mu xëcc ko ne ñëwal ci kanam. dafay bañ rek. fi mu rek lay toog. sëriñ bi foofu place kilifa yi la bàyyi na rek. bu ñëwee nga jox ko chaise na ko toogal. bëgg a yow man may ndongo daara boobu nga xamoon ma toogal ci kaw chaise. mu ne yow danga may bëgg a man may ndongo daara boobu nga xamoon. tey nga bëgg maa toogloo ci kaw chaise. noonu la noonu la ay jikkoom meloon. noonu la ay jikkoom meloon. noonu la ay jikkoom oyofee woon. noonu la ay jikkoom oyofee woon. mu boole ko nag fulla joo xam ne. mu boole ko nag ak fulla joo xam ne. boo ko gisee mën ngaa am nga ragal ko. boo ko gisee mën naa xam nga ragal ko. waaye boo dugganteeg moom. waaye boo dugganteeg moom. dafa neex a neex a neex ba moo dàqale. dafa neex a neex a neex ba moo dàqalem. mbooleem nag jëfandikaay ci mbooleem nag jëfandikaay yi. diggante ci diggante nit ak nit. diggante nit ak moroomam. diggante nit ak moroomam. diggante nit waajuram. nit ku doy waar la woon. waaye loolu mu doon def yëpp te yàlla taxoon mu di ko def. waaye loolu mu doon def yëpp te yàlla taxoon mu di def. tey mu nga jëm ci ki nga xam ne moo taxoon mu di ko def. ni mu koy teeroo sa njort ci man du ma ko tas sa ci man du ma ko tas njort li nga amoon ba daan def lu baax ngir def lu baax ngir man njort li nga xamoon ba daan def lu baax ngir man njort yooyu du ma woon rek man yàlla du ma ko tas nam nekkee woon rek la yal na ko yàlla teeroo noonu yal na yal na ko yàlla boole ci kilifaay bés boobu ñuy xaar yal na ko yàlla boole ci ñuy séddale yonent bi sallallahu alayhi na gaaw leen ut ay xarit gaaw leen ut ay xarit fii ci àddina bon nag gaaw leen xaritoo ak ñoom. bu leen seet ci bu leen leen seet ci borom daraja yi. bu leen leen seet ci borom alal yi. bu leen leen seet ci borom alal yi. seet leen ci miskini yi nga xam ne. waaye bu leen di wër seet leen leen ci miskini yàlla yi nga xam ne. ay miskini yàlla lañ. ay miskini yàlla lañ. booy dem ci dem ci yàlla yóbbuwoo dara. muy naax yàlla. lu mooy mbaax ak yàlla amut loo fa mënti jëlee amut loo fa mu ngi mel ni ku gàdd sa baak rek ak sa ndab di rooti ci teen wala ngay dem ca teen ba sa ndab laa ngi fees ak ndox wala ngay dem ca teen ba sa ndab laa ngay fees ak ndox boo demee doo fa jëlee dara waaye boo demee ak sa xottab ndab foofa ngay mën a jëlee ca ndox ma indi jëfandikoo ci yàlla yóbbuwuñ dara lu mooy ay jaam rek lañ. kon ñu ngi dem ci yàlla yóbbuwuñ dara lu mooy ne ay jaam rek lañ. kese kese kese. kese kese kese kese. amuñ dara lu ñu indi ci yow. amuñ dara lu ñu indi ci yow. lu ñu indi rek ci yow la bàyyeekoo. ndax lépp lu ñu fi andi. ci yow mii la bàyyeekoo. ci sa mbaax la bàyyeekoo. mbaax googu. yal na ko yàlla saxal ci ñun yaa rabbi. yal na ñu yàlla dimbale yaa rabbi. ñun nekkal yàlla daa iman ci mbooleem suñu relation yi am ak nit ñi ci mbooleem suñu am ak nit ko yàlla yërëm yërëm leen ñoom ñi tëdd ñëpp moo ñim àndat ñëpp ñëpp ñu nit ñu tedd lañ ñoom ñëpp nit ñu tedd ni leen yàlla dajale leen boole leen ñu ànd war nañoo wan ne nit ñi tedd lañ génne leenu génne leen hit ci mbooloo mu xem nii ay shérifa ngi fi sëti ay yonent ngi fi ñoom ñëpp ñëw nañ fekkee seen bés yi loolu ku ne xam na ne teraanga yàlla la yal na gën a màgg fañ jëm yal na yal na leen yàlla baaxee yal na leen yàlla def ay buur ca bés booba ndax foofa rekk la nguur xam ku fa falu falu nga te dootoo folleeku ba mukk te doo dee it sa bopp du la fa métti sa tànk du fa métti dara du la fa métti foofa la nguur nekk. foofa la nguur nekk. yal nañu fa yàlla def ay buur. salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf ñes yal na ngeen fi yàggate wër. defar leen taxawaay te ngeen jublu xibla. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. Thank you.